salaamaaleykum Gambia mën la seen xarit seen doom Tidiane Ba ñu ngi leen a dalalaat si Ballot Power show bi ah, réeréewuñ mbir ne um, show bi nii mooy waxtaan affaire yi constitution bi um, réeréewuñ mbir ne constitution bi eh, yóbbu nañ ko si léegi député yi ah, waaye ñoom daal dañ ko reject léegi nag pour waxtaanee constitution bi tey ñu ngi leen amal Mr Habib Niang Habib Niang nag eh, ñëpp xam nañ ko Banjul fii taxawaayam. Eh, moom nak, mom community PRO la Banjul fini So so moom dinañ waxtaan ngir constitution bi mom lan la si foog ak laboi yi yi nga tam dooleel nañ leen si constitution bi Nyom tam lan mooy wala si si si constitution bi Nyom tam lan lañ am pour wax nit ñi eh, tam lan lañ foog si constitution bi eh, Mr Nyang ñu ngi dalal si Ballot Power Show bi. Hmm. asalaamaaleykum Gambia. Assalamualaikum, عليكم نمو كودي وخيرك اي من ماي حبيب نيام man ni ma ko dee hai biaro Banjul biaro Gambia biaro afrika. man nyep la fi nekkal pour développement moo ma ñor lu jëmale réew mi kanam rek si lay man kontan naa torop ni ngeen matalee lii nii ñu wax si constitution bi parce que bi nyep la ñëpp ñoo si mer parce que luñ indi pour njëriñ yi ñëpp ñu indi ko war koo doxal si national assembly bi ñu jeko ko loolu nekk na loo xam ne daal waru daal xam ku nekk yaa am sa xam-xam parce que lii xaalis lañ ci def wóor réew mi yëpp pour lii ñu taxawal ko pour mu nekk loo xam ne dina jëriñ nit ñi yëpp mbaa dina jëriñ am na ñu ñu am na ñu moo jëriñ ci nit ñi am na yoo xam ne du la jëriñ waaye yow li nga di du jëriñ nga nekku ne du jëriñ kenn yëpp dañ ko waroon a seet rek ñu seet naka nañ koo implémenter pour pour duy jëriñ njëriñu réew mi waaye ñu rëjëk ko loolu xaalis bu baree ngi yàqu ama loolu daal gis naa ne daal waruñ koo bàyyi mu dee parce que xaalis lañ ci def yow dafa mel ne yow li nga def yépp li nga wóor yépp li nga ne danga ko def pour njëriñ nit ñi yépp danga koo dem nga lu li ñoo wax hundred and ñaata million dalasi nga def ko ci constitution bi nga ñëw ñu ñu ne nii duñ ko jël nga jël yooyu yépp saani ko nga war a lifinaal beneen loolu daal moom eh, eh, eh, su dee ne anga su dee réew bu yu mag yi sax ama war sax lii yaaxal sax laa ko gisee de yaaxal ko bu ko gisee de te ya lii daal waruñ ko nangu daal ñu bàyyi ko mu ñu ñu sànni ko daal. waaw waaw li nga wax loolu noonu am na solo waaye balaa ñu ñëw si loolu noonu yow naka nga gisee liggéey yi ñoo xam ne ñoom lañ sasoon. pour ñu isil ñu ñu ñu jagaral ñu constitution bu ees bi nii mooy lu yi ees pour Gambie fii yow naka nga gisee sa liggéey naka nga gisee gars yi seen liggéey seen liggéey bi mën ni mu ko gisee baax na torop because of ñoom ñu ngee def seen liggéey ñu ngee ñu ngee ñu ngee laaj ni ñi because of ñu ngi xam loo xam ne xamuñ ko woon te ñu ngi def seen liggéey waaye naka la affaire yi constitution bi tam xam nga ñu ngi ci doon ñoom daal ñu ngay def seen liggéey daal noonu lañ ko gisee. waaw so constitution bi ñu isi nii mooy draft constitution bi. Mhm. am na provision yoo xam ne mu ngi dooleel eh, laabo yi mu ngi leen mu ngi dooleel seen rights you know seen seen aha and mu ngi leen jox tam place even eh, si government bi. ak even si si parlement bi si si néegi député yi eh, eh, eh, ñu fa war a nekk ñoo xam ne laabo lañ dafa yokku su yow lan nga gisee noonu yow lan nga foog si loolu. ah loolu de lu doon dooleel doomu atam yi la rawatina ñi nga xam ne yàlla dafa téye seen ñun dañ ñu lag behind nag dëgg-dëgg. du ñu dee nangoo jox opportunité fu ñuy fu ñu dem rek dañu dee bañ ak accept mbaa suñu yéen tax yi suñu yéen a indi ka liggéeykaay yëpp dañ dee am accès pour dugga fa soo duggee ñu foo ne yow da nga ñëw pour yalwaan mbaa da nga ñëw pour da nga war a am accès pour dugga foofu pour xam nga joxe sa xalaat yow tam yow tam da am wàll si réew mi loo war a joxe nga loo xam ne yow yaa ko am nga man man day léegi-léegi dama day gis ñeneen ñuy dox ñu ngi dox yoo xam ne daal man gis naa ne daal suñ ma fa tegoon man mi laago sax dinaa def lu génn loolu xam nga mhm. nekkul ne ne ku yàlla tiyeesal nga foog mu jox la leneen nekkul ne am nga baaraam yi sax emuñ am nga lu nekk emut si nit yàlla dina la jox lii xañ la lii waaye di nga ci loolu dañ war a bokk si développement bi daal man dama doon wax sax ni président boro war na am advice laago sax Sénégal sax dañ def loolu benn laago maa ngi ko gis advice la ba Macky Sall la am nga loolu lu war a am la am nga because of ñun ñoo war gën a nekk si suuf ñun ñooy ñun ñooy man wax ko ne ñun ñun ñooy di laas dot xam nga si development, lu ñoo lifin rek ñun la ñoo mujjee tànn ñu ñu am si wàlla xam nga te loolu warut ñun ñëpp ñoo am si réew mi dañu war a émale ñun ñëpp xam nga ñu em xam nga jërëjëf waaw ok so li nga wax ah, sa wax rafet na ah, wax nga ne even Sénégal laago yi am nañ ñi eh, ki nga xam ne moom advice président because man sax foog naa ne nit ki euh, sa own problème yow yaa ko gën a mun a wax nit. Mm-hmm. Euh, soo soo amee nit koo xam ne mun nga fa taxawal ki nga xam ne yëg na yëg na yow loo yëg yëg na sa problème foog naa ne ku mun a gën a mun a you know um, advocate al yow li nga bëgg a. Mm-hmm. waaw léegi nag ñu dem si beneen question bi um, gis nañ ne vote bi eh, dañ ko reject maanaam gars yi pour mu dem référendum pour nit ñi ñi nga xam ne nit ñi ñu dem ñoom ñu décider seen boppa yow lan nga foog si loolu ndax ñi nga xam ne ñoo vote noonu eh, si néegi député yi ndax ñoom ñoo nañ si nit ñi you know pour pour déglu gars yi ñoom tam lu ñoo wax ndax ñoom bëgga nañ ko because réewuñ mbir ne am na eh, sauvé yu ñu fi defoon sax am na yoo xam ne lajte laajte yu ñu defoon si dëkk bi laajte yooyu noonu daf laa woon ne majority of Gambian Gambian yu gën a bëri ñoom dañ bugga draft constitution bi ñu dem so suñ demee si député bi ñoom ñu ñu bañ a draft bi yow lan nga foog si loolu mbaay ñoom ñoo nañ si nit yi pour la tegaay ñoom lan lañ si draft bi ndax yes la ou non nga fi mu ne nii sax loolu lañ ko ren gën a taxaw nit yow bala dem si house bi sax da nga war a njëkki sa nit ñi yow nga draft bi sax ñoom seen wax bi sax dafa waroon a seet nit ñi xam nga ñoom nit ñi dem nañ ci nit ñi gaa yi naka eh, constitution ni fin bi dem nañ ci nit ñi laaj leen seen xalaat nit ñi wax nañ ba pare hmm, so dañ ko dañ waroon a rek li war ñu def ko rek pour ñu ñu ñu ñu lifin ko rek dem référendum yi hmm. so waaw foog naa loolu loolu daal dina rafetoon de. Mhm. dina rafetoon waaye yow léegi yow yow yow laago nga. Um, te yow ñëpp xam nañ sa taxawaay baañul fii nii. Mhm. yow yëngatu yëngatu bu am yow yow doo dee dellu gannaaw yow tax na sax bi ñu tuddee la action man yow action rek nga bëgg mhm. so yow lu tax um, yow nga am nga am nga nga am bugga bugga boobu noonu pour affaire yi dox te yow yaa ngi nekk laago yow lan moo la démotiver. man man parce que doomi réew doomi réew bu mu nekk war ngaa bëgg sa réew xam nga sa yow sa réew moo la war a moo moo la war a lifin force moom nga war a seet bala ngaa seet sa boppa kay eh, ñun ñëpp ñoo fi nekk te yow da nga war a seet njëm kanam yi sa réew moo la war a gën a lépp nga doo sa réew nga war a ndamoo seriyunga wara jayi am, yo yo right bingam sari omlu loko benere digde yo linda ni sariw amu na fi dara la fay def am de so demee ne réew dañ laaj ay pamita yooyu ay lifin yooyu ay residential panita yooyu way sa ya yaa ko moom sa réew la am dal daal war nga nit ki daal dama ko gisee war nga bugga sa réew nga yonent bi sax def ko wax mu ne mu ne mu ne bugga sa réew si jàmm yàlla la bokk nga ndigte sa bos yaa ko moom danga ko war a fonka bu baax nga gis ne mu ngay dox am nga loolu sa gis ne doxul sax yow war nga koo doxal nga fii politicien yi sax ma ko si politicien yi dañ dee nekk ennemi su ma toogee laay liggéey yow soo toogagut ànd la président mi nga liggéey loolu mooy njëkk kanam nga dañu war a bokk ñun ñëpp ñu liggéey pour njëm kanami réew mi réew mi mooy la war a ñor am nga parce que yow yow li nga daw yëpp nga ne mën ngaa defar réew mi yow ba nga toogutee sa nga mën gën defar réew mi comme ba nga toogee parce que amaguloo dara yaa ngi lifin nga strogu la ko xam nga da nga war a strogu la nit ñi njëkka xam nga afta xam nga afta dinañ xam ne kii ki doon strogu la nit ñi xam nga soo soo soo toogee nañu xam ne kii dina def dara waaye yow defuloo dara nga ñu ngi la jox yaa ngi dem di ñaan donation ñu ngi la ko jox sa nit ñi yaa ngi leen meeting rek nga leen a oo yi xam nga politique rek nga leen a oo mosu leen a indi développement xam nga ñooy ndakal ñi la gisee nga yeneen booy bët bu rusu toj nag day soona si yooyu nga jërëjëf waaw ok so léegi ñu ñu waxtaan si mbiri constitution yi ñëw si constitution bi mm-hmm. gis nañ ne constitution bi nii comme li ñoo wax si tubaab is very progressive dafa over dem kanam moom jëm kanam yi Gambia loolu loolu la taxawal ñëpp nangu nañ si loolu ah, because am nañ si provision yoo xam ne dooleel na jigéen ñi hmm? mm-hmm. dooleel na ndaw ñi mm-hmm. you know ak ah, rawatina laago yi you know ñu dee ne rights human rights ah, social rights mooy yelleefe nit ñi mm. dooleel na ko bu baax mm. you know so constitution bi am na loolu noonu yëpp so yow lan naka nga gisee loolu noonu lii nii constitution bii nii am na yi nii yëpp yow la naka nga ko gisee yii yëpp am na si waaye pour implement ko moo des yi nga suñ suñ MP suñ kansula yi yii dañ dañ war a am ñun tam man dama dama am development plan développement plan boo xam ne si Afrique yëpp la nekk kan. développement plan boobu mooy police naka naka eh, human rights nga am ngam nga am nga am lawyer yi nga am judiciaire bi am yooyu ñoo xool constitution bi ñoo xool njëriñu réew mi ñu gis ne ku nekk def nga sa nga liggéeykaay bu nekk liñ la tegee dinga ko def dinañ la dinañ la toppa di la toppa pour nga liggéey bi ngaa def nga léegi-léegi nga def ko si liggéeykaay yi sax nga gis gaay yi ñu ngi ndéewoo nga duñ nangoo def liggéey bi mu ngi def nga yooyu yëpp war nañoo am man dama gis ne nekk na taat suñ nekk sécurité bi war nañ leen inject si yenn institution si man dama gis ne nga eh, pol eh, sécurité bi sécurité bi moom mission rek la am te mission bu mu dem dafa paas mission bu mu dem daf ko lifi parce que ñoom ñoom mbooloo lañ ba pare time lañ xam ba pare dañoo liggéey muñ Gambian time man musuma gis loolu si affaire sécurité Gambian time am si time bi da ngaa liggéey. ba pare ba pare da ngaa ñëw time waaw. ñoom time nañ woo nañ leen inject si liggéey suñ liggéeykaay yi dégg nga mu dimbali ñu ndax ñu mun a gaaw a dem. waaw wax nga fa wax nga fa lu am solo. because eh, fu mu nekk nii foog ñun ñëpp ñu jàpp si. Mm-hmm. pour affaire si mun a dox. te mm-hmm. rawatina even uh, right suñu wax nii yëpp ak constitution bi nu mu doon léegi yëpp because constitution la loi la yoo xam ne ñu ngi ko bindee si kayit waaye. foog ñëpp ñu jàpp si. Ah, pour mu mun a dem si kanam loolu rafet nañ ko rafet lañ ko bu baax léegi euh, léegi ma laajte la euh, draft bi léegi yóbbu nañ ko si si député yi ah gars yi nag mu dem because dafa waroon a dem euh, su député yi suñ nangu woon mm. suñ amoon percentage buñ buggoon pour mu paas. Mm. Ah, dina doon dem si nit ñi ñu def référendum. Mm. nit ñi vote waaye. Ah, still am nañ fa beneen constitution mooy 1997 constitution bi am na ñi nga am na ñuy wax ne sax ne 1997 constitution boobu am na lu luwaa yu bon yu fa nekk luwaa yooyu soo leen jagaree hmm, affaire si mun naa baax wala ñu isiwaat draft bi hmm. ñu yóbbuwaat ko si néegi député yi hmm. ñu waxtaan si ñu seet lan lañ fa mun a change pour ñu yóbbuwaat ko pour ñu ñu mun a di soo yow lan nga am pour wax si lii waaw gis nga naka la tuuti bi fi nekkoon boobu dañ waxoon ne boo baaxut soo ñu indépendant bii moom boo duñ koo bàyyi daal mu mu yow daal bii nii moom dañ ko war a nañ koo bàyyi daal mu dem hmm. moom bii xaalis lañ ci def xaalis biñ ci def rek moom moom waruñ koo bàyyi noonu hmm. nañ koo yëkkatiwaat hmm. ñu seet yi lañ leen ci war a génnee dicté nga yow doo jël doolu yëpp nga nga sànni ko nga xaalis bu bëri boobu yëpp nga ñun réew boo xam ne day néew dool amuñ yalwaan lañ yaakaar ñu lifin ba ba loolu am nga soo ñu nar rek mu dem noonu parce que loolu sax yàlla def ñu si account loolu yàlla si account trop because of xaalis dañ si def waruñ koo bàyyi mu dem dem loolu nag am na solo Euh, soo ko gisee nekkut ne xaalis rek lañ fa teg loolu liggéey liggéey liggéey lañ fa def tam you know constitution eh, commission bi def nañ seen liggéey ñoom def nañ seen def waaye léegi euh, ñu ñu gën a dem rek euh, léegi dama doon dama doon dama la doon léegi laajte yow lan nga foog ne léegi ñu ngi ñu am elections you know ñu ngi am elections ñu am elections am am am na mbootaay yi fi nekka mbootaay yi nekka fii nii ñu ñëw ay CSO ah, ñoom tam xam naa yow yaa ngi liggéey ak gars yi because ah, demoon nañ community engagement hmm. gis nañ sa taxawaay so yow mbootaay yooyu noonu tam xam naa yaa ngi liggéey ak gars yow tam lan nga foog mbootaay yooyu noonu ñoom tam mun nañoo def pour nga gis ne ah, suñ constitution bii nii dinañ ko dinañ ko mun a jëlaat ba mu dem référendum ba mu nekk loi yow lan nga foog si loolu. then engage MPC. Exactly. then, <coughs> then engage council yi nañ engage community bi ñu ñëw si biir community bi ñun ñëpp ñu toog ak councilor yeeg yëpp suñ toogee ñu waxtaan suñ yi am ku nekk wax si sa xalaat am hmm, su boobaa kay moom affaire yi dinañ ko mën a indiwaat parce am nga lii dafa ñaaw torop ne iga teg xaalis bi dafa bari de mm. ku bàyyi noonu ñun amuñ dara dina trop. ok ñu dem mm, waxtu bi fu nekk nii jaamu nañu. Mm. léegi final yow looy wax nit ñi Gambie fu nekk nii ñëpp ñu mun a yow lan nga am pour wax nit ñu fa nekk mooy député yi ñi ngi biti nit yi ñu nekk lan ngay bi bi. li ma wax nañ bokk a ñun ñëpp ñu liggéey pour suñu réew parce que nit ki amul dara loo xam ne di ko def luñ jëriñ sa réew noonu nga war a war a noonu dox nit soo buggee dem kanam da nga réew mi jëm kanam su réew mi jëm kanam parce que yëpp su doxee rek nga dox léegi man government bi lay oo pour ñu ñëw si si gox yi am na ay nit ñoo xam ne ñoom lañ fa war a jël ñi nga xam ne ñoo responsible gox bi ñoo dee gën a yëngu si gox bi ñii ñu tànn leen eh, development partners man daal development moo ma ñor su nguur gi mu ne def benn lifin boo xam ne dina ñu dim dina ma dimbale ma dajale suma ñeneen mbootaay ñoo xam ne dinañ mën a ànd ñu ñëpp ñu dimbale pour réew mi loolu daal dina doon baax torop ba pare nañ seet suma maas yi ñi nga xam ne dañ néew doole ñi ñu am every time ñuy waxtaan ak ñoom hmm, dañu war di waxtaan man nu ma ko gisee journaliste yi dañu war a ànd ak ñoom yi neen ñu gis ni fake news du fi amati. waaw jërëjëf um, jërëjëf oncle Habib um, waxtu bi nag fu mu nekk nii jàmm nañu um, di la gërëm bu baax si ni nga ñëwee si Ballot Power Show bi. Mm-hmm. Uh, di la jaajëfal bu baax waaw mbokk yi foog naa waxtu lii la ñu mayoon. Ah, man la seen xarit seen eh, seen doom Tijaan Ba ah, dinañ ñëwaat beneen épisode ah, balaa boobu thank you so much